fang ak juróom-ñaar yu teg ci ay capote le conseil national de lutte contre le sida maanaam kuréel gi di xeex jàngoroy sida daal di séddale fii ci Sénégal ci atum 2019 lu ni mel ngir askan wi gën a fagaru ci bile feebar xibaar bi nag gannaaw bañ ko fësalee ci seen rapport gu mujj daal dina jur mbetteel. bi ma liiree donc cette affaire biñ ñu joxee résultat yooyu ne 17 millions 400 000 préservatifs yoo xam ne distribué nañ ko au niveau du territoire national ça m'a fait tiquer en fait ça m'a fait tiquer. loolu c'est grave si dëkk bu mel ne Sénégal Sénégal boo déggee ñu wax Sénégal dafa woote diine ak l'islam et tout ça le Sénégal mbon yëpp fi la fi le fi la nekk ah. Cheikhouna moom bi mu joté ci nouvelle bi li lañu denk ñun réewu jullit lañu nek nekk bu ñu nekkee réewu jullit li fi nekk ku neew dañ ko wara a bañ cee dolé lanen deug loolu deug

loolu lu koy lu koy causé mooy que ne fii dafa bari ay appartement meublé dafa bari ay auberge dafa bari si dëkkuwaay yoo xamante ni dañ koy jël daf ko euh, passe euh, lieu de passe xale yi yu ndaw ñi ku ñëw jot ku jot dugg ku jot dugg mais loolu moo tax rek parce que instant bi nit ñi yaratuñ seen doom yi da gis benn xale bu dem yendu si benn meublé ak benn copain mais lu ñu fay nekkee dul daf seen nekk su dul noonu loolu dong moo ko moo ko waral suñu jugee jël ay sanctions yoo xam ne yu yu métti yu tar la teg nit ñi pour ñu mun a pour pour pour Sénégal mun a dalee fa mu nekkoon mais su loolu lii rek ma fi am dina gën a yokk dina taux bi day gën a yokk jëm kanam. li ñu ci mbedd ndakaaru yi xamal nañu ni fi dëkk bi toll dafay baax ngir ñuy jëfandikoo capote. préservatif yi baax na baax moom def na ko kooku moom duñ ko contesté cest à di nag bon. distribué nañ ko ni ko war a dis ni ñu ko war a distribué kooku mi ngi def mi ngi engagé ñi nga xam ne que ne ñoom ñoo koy distribué askan wi jot ko ak ñu ñàkk ko bañ a jot kooku moom askan wi doon ko war a jot te dañ leen war a xamal it di préservative di jariñ d' accord que ne xëy na too dem nañ ci ba 2020 jamono ji léegi xam na nañ luy préservatif egg na wala egg na foofu war a egg loolu dara wóoruma ci mais buñ ko distribué nañ ko war a distribué baax na waaw te ñu xamal ko nit ñi ñi ci war a jot it bu leen ci jotal bu ma naan ñii ci wërta jot bu leen ci jota mooy que ne xale bi nga xam ne que ne ki nga xam ne que ne xale la wërta xam loolu mën na ko ko mën nañ ko ko bañ a xamal wala bu ñu koy xamal dina xam dañ ko xamal la muy tekki lan la. bile séddale nag moom mu ñuy xamal ni gisu ci benn gàllankoor dañu ko def rek ngir aar askan wi. ki nga xam ne que ne dafa dañ ko poussé pour mu def li nga xam ne que ne def na naka tudd noonu kooku fekkoon na mu namm loola. buñ ko ci encourager ok fekk na ko encourager mais préservatif mënut ñak ñàkk mënut ñak ci société actuelle bi nga xamné que ne nit ñi seen wàllu bop bon ñi ngi doxé nu la neex da nga ko def rek pour ar nit ñi. Moussa nak mom li mo ci xalatam je pense bien que ne 17 millions yoy lu ñu wax la mais gëw ma ne également luñ utiliser la ah euh, ci ci ci ci Sénégal yépp parce que 17 millions de de préservatifs foo koy duggal fan lañ koy duggal nañ waxante deug

mais jarul donc euh, à à la vue et au su de tout le monde ñu koy ñu koy distribuer comme ils veulent donc lool daal war nañ ci amaat taxaw seetlu ndax ñu gën a mën a yar suñu askan parce que daf ci am solo parce que ndaw yi nii nii ñoom ñooy màgg ji ëllëg. ba tey rek mu dellu di sàkku ci kilifa diine yi ak kilifa aada yi ngir ñu amal taxaw seetlu ci lu ni mel. xale bu la gën a ndaw tey loolu la lay wax xale bu la gën a ndaw boo ko waxee waxu. Euh, rapport sexuel sexuels sont maîtrisés maîtriser quest scandale la les fois dernière ni pratiquement chaque mois nous avons, la scandale au Sénégal scandale sexuel donc nous noonu nous nañ ci taxaw ñu amaat ci bu de qu'il yi